mais léegi alal bu ñu demee tey ba nit ñi ni xaalis kenn dootu ko liggéey dañu koy lijjanti. Hmm. li sër sama sëriñ sëriñ Bay Si Abdul Aziz Njool Fuuta yal na yàlla yokk fanam ak wéram li mu naan fan la lëje hmm. mooy laaj bi xaalis kenn du ko liggéey lislaam ñett yi la xam ci alal dang nga koy doonnu hmm. baa ñu may la ko baa nga liggéey ko li nga doonnu lëjul liñ la may lëjul li nga liggey lëjul kon buñu démé demee ba tey ñu ni xaaliss kenn dootu ko liggey mais dañu koy lijeenti mais fan la lëjee ak kan moko ko mo top nak xaaliss ba carte gi tay يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون مولم xeetu كارتي كريانغا kër دانيو فايدف كارت pour ñu bañ a tudd benn tur fépp fo xamanteni da ngay dem jënd ben billet billet bi yang koy jënd 200 francs di xaar am ci 10000 francs wala 1 million wala nga am ci 5000 francs xamal ni yaangi ci carte bo gagné carte nga bo perté carte nga suñu borom subhanahu wa taala nee na innama yuridu shaytanu an yuqia bainakum al adawata wal bagdaa fi al xamri wal maisir suñu borom subhanahu wa taala nee li waral carte graw moom ak sàngara mhm. mooy seytaane bu jéemee ci seen diggante yi jéem-jéem mënu ci dara mhm. bu bëggee ngeen noonoo rek sàngara lay dugal yéen bu ngeen mandee rek tey boo mandi woon ma mandi léegi nii eh, eh, <laughs> télé bi day daal di neex amul wérante <laughs> ah? uh-huh. kon ci sàngara la koy jaar mhm. waaye beneen bi mooy carte tey bu ñu tegoon ma nag yow nga teg ci dara ma teg ci dara xoolal rek yow mi nga xam ne yaa ngi seetaan émission bi. Mhm. di def match dimanche matin. Mhm. ci ay jamono. Mhm. ngay def gañ sa muning. wala ngay def série penalty yi nga teg cent franc sa morom teg cent franc. xoolal ñi nga daan kartal ñi nga ci xeexal. ñaata yoon موتخ يالني إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر شيطان سابو بقى يقسين ديغنتي ريك تي كارت لي جار بوكو توبي تي على جو جو جو أرام دفاي نيو باتي ربابي تي أحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار nasim mhm. xoolal tey adduna bi ni ñuy dunde riba ah, doy ngir ñàkk mën a muñ mhm. ñàkk a muñ da ngay liggéey am nga kër goo mën a dëkk walla amoo kër goo mën a dëkk mais am nga loo fayee lu yaas mhm. bu fekkee ni amoo oto it am na ay transport en commun yoo xamee ni boo bëggee liggéey yi di nga ci dugg dem boo amee soxla di nga ci dugg nga fay nga dem nga ñëw mais looy doyee xaalisu banque lislaam nee na fa man utturra fi mahmasatin gayra mutajaanifin li ismin fa inna allaha gafuru rahim moom lañ koy layale mm-hmm. mooy ki nga xam ni dafa xiif nekk ci àll dagan na ci moom mu lekk médd mm-hmm. waaw mais est-ce que àgg nga foofa pour war a mën a leb mm-hmm. ki nga xam ni dafa nekk ci àll te amul lu mu lekk ñu ni ko boo gisee médd dagg ci nga lakk nga lekk dagg ci nga yóbbaale ba dab ab marché nga door koo sànni foofu lañ koy layale déedéet saa boo demee ak banque bu mu mënti doon mhm. mbooloo bu mu mënti doon organisation bu mu mënti doon saa boo lebee benn mille francs war a fay benn mille deux cent francs wala nga war a fay mille cent francs dugg nga ci riba mhm. te suñu borom subhaanahu wa taala nee na riba moom dafay yàq alal mhm. lan moo ko waral ñàkk a muñ tey yàkkamteeg bëgge ak bëgge ak bëgge ñàkk muñ te loolu nga dem jël ko ba mu dugal la ci riba xamoo ni sa wërsëg la boo toogoon xaar ko billahi mu ñëw waaye yaa ko yàqamti ba jël ko ci beneen anam parce que ñun ni ñu dee di dàqe noonu la ñu wërsëg di dàqe yàlla subhanahu wa taala kenn ku ne ci ñun bindal na la budget avant ngay judd mhm. budget bi mu ngi war a tàmbali bi sàngam war nga jot nangam wer sangam war nga lek nangam at sangam war nga lek nangam fek jeexul di ko lek gis nga bo xeye yow da ngay daw di wëti di wëri weursak mais weursak wa ca bopam day daw di la weur ndax borom bi bind nako te fokk mu ñëw ci yow deggo yàlla wa maa min dabbatin fil ardi illa ala allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaaha kullun fi kitabin mubin amul dara luy dukkat kon waxuma sax nit luy dox lu mu meunti doon lu ne ak nu mu mënti doxe mo xam day watatu mo xam ñaari tànk lay doxe mo xam ñenti tànk lay doxe ak lu mu mënti doon suñu borom subhanahu wa taala neena na wërsëgam maa gàddu te dina ko ko jox allahu akbar boo xamee loolu looy riba jaru ko يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا تاي كون لان لا بغا جانغالي شريف تي والو ربا ديسغا بانك بي بو نيوي bi فا اوتو موم بانك بي مو جيل اوتو بي jël oto bi par exemple mu joxe la ko ci quinze millions nga war ko fay ci cinq ans wala trois ans dara newu ci du riba waaye boo ñëwee ci banque bi aussi bëgg kër banque bi dem jënd kër gi lebal la kër kër ga boo demee turu banque cee ne dañ koy gazé mu jël kër gi jox la banque bi même bu doon ne kër gi daf ko jëndee cent millions yow mu joxe la ko deux cent millions mu jëm vingt ans dara newu ci du riba waaye saa boo ñëwee nag jël xaalis ci banque bi mu doon 1000 francs banque bi bu ci tegee benn 10 francs xamal ni yaa ngi ci riba mhm. moo dem ba ci marchandise yi mhm. des fois ceeb day am man léeg-léeg daf may dal des fois daara ji dañuy am benn ceeb mhm. boo xamante ni du doon ceeb bi nga xamante ni arrangé na daara ji am naa benn commerçant bu baax maa ngi koy ñaanal subhaanahu wa taala na ko sàmm te aar ko yokku xéewalam muy àll cuun damay ñëw jox ko ceeb bi mais bu ma ko joxee ceeb ci misaal moom mu jox beneen saaku ceeb cinquante kilos laa koy jox par exemple ma jël misaal mhm. dañ may jox parfumé ma jox ko parfumé bi mu jox ma ceebu waalo bi mhm. léegi bu ma joxee bu ma ko joxee cinquante kilos parfumé mhm. saa bu ma joxee cinquante et ceebu waalo dugg nañu ci ribaa xam nga léegi nan laay def ak moom bu fekkee ni par exemple parfumé bi ñu ma jox arrangé wul daara ji ndax bokkul ak ni ñu ko bëggee mën naam arrangé wuñu damay ñëw jaay ko parfumé bi mais du ma jël xaalis bu ma ko jaayee parfumé bi par exemple ma jaay ko ko cent mille francs léegi cent mille francs yooyu bu dee ceebu waalo bi mën naa cee am vingt cinq sacs te fële vingt sacs la ma ne ko jaay ma vingt cinq sacs moo tax suñu borom ni yaa yoolee yooyu yëpp boo gisee ma koy leeral lan la mooy dafa am riba boo xamante ni kem ak kem la ceeb bi lu mu gën a cher ceeb bële saa boo joxee nit ki benn kilo bu ci tegee dara rek dugg nga ci riba kon mën nga ko jaay nga jënd bële mais mënoo ko jox ceeb bii mu lay jox ceeb bële di la jox lu ëpp yaa ngi dugg ci riba mhm. mooy xaalis non lay démé bo demoon ci gerte gi non lay démé bo démé ci ñebbe ji non lay démé suñu borom subhanahu wa taala dafa bëggul kenn lor gis nga ya ayu alladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum muminin fa in lam taf'alu fa adanu bi harbin min allahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ruusu amwalikum la tazlimuna la tuzlamun sadaqa allahu al-azim suñu borom adressé na ñi gëm yéen ñi gëm ñu ne ah mu ne ragal leen yàlla ñu ne waaw mu ne bàyyi leen riba bu fekkee da ngeen a gëm bàyyi leen riba ba pare tëkkuñu bu ngeen ko bàyyiwul nag préparé leen xam ni guerre a ngi ñëw sama digganteeg yéen man ak sama yonent ñu ne waaw ñun dañ ko doon def mu ni bu ngeen tuubee nag seen capital yéen a moom mhm. la ngeen te jotoon a def tuub ngeen jël leen dara nekku ci ndaxte boo tuubee te tuub gi di dëgg bul fàtte shérif la la alquran digoon fa ulaayika yubaddilu llahu sayyiaatihim xasanaat kon maa ngi dem rek di génn di duggaat mais fan laa nekkoon mooy ci asabru muñ mhm. alal bariwaanal fu ci nit àgg dafa muñul mhm. waaye bu muñoon te xaar dina ca jot mhm. sëy bariwaana bu tas muy góor ga muy jigéen ji fa muñul léeg-léeg su ma toogeek sama xarit yi di waxtaan ak ñoom dama naan leen ñun ñii kenn ku ci fase jabar ku ne sa yaay tooñ na sa papa tooñ bu gën a garaaw boobu mais sa papa dafa amoon jikkoy muñ ba muñaloon sa yaay mm. moo tax nga judd mm. ñun nag muñ googa moo nekkul ci ñun dañ dul muñ mm. te yàlla nee na yaa ayyuha alladina amanu sbiru wa saabiru yéen ñi gëm yàlla muñ leen nga ne waaw mu ne waaye saabiru muñalante leen ànd bi bu ngeen muñalantewul du dem yàlla subhanahu wa taala ni innama yuwaffa saabiruna ajrahum bi gayri xisaab man yàlla dinaa matalal muñkat yi te bu ma leen di fay du ko réglé kon muñ dafa am doole inna allaha yàlla àndal foo jëm ñeme fa mm. yàlla nee na maa ngi ànd ak muñkat yi moo tax yàlla nee na lu parti yi bëri benn parti laa boole sama bopp mm-hmm. muy parti muñkat yi mm-hmm. inna allaha ma assabirina man yàlla maag muñkat yi ñooy yëkkateendoo ñooy tegandoo mm-hmm. waaye nag li nga wax ci banque am na solo lool ñu ngi ciy profité di nuyuwaale monsieur Kane bu baax Thierno Madani yal na yàlla guddal fanam muy directeur général banque islamique du Sénégal jullit ñi nag am nañu seen banque yal na yàlla jàppale leen yal na yàlla dooleel leen bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam